waaye mu tase fi ak Massyla Kane mii nga xam ni lu dul santam wi ëpple wuñ ko ko ci Baye Mbaye waaw sant wi rek lañ ko ci ëpple te sant amul solo moom itam ak yéeneem ak teraangaam Ahmadou ma nettali la ci Massyla mi ñaari mbir dama gént gis Cheikh Ahmed Tidiane Sy radiyallaahu anhu sama sëriñ mooy sama sëriñ mu yor ay kurus tiim kurus yi di ci jël kurus yi par benn di jàng ba yàgg mu dajale kurus yooyu jël ko jox ma ni ma genn gii nag masil la laa koy yónnee moom ma xëy dem kel daje fa ak masil la ma nettali ko mu xaalu bala woon ca poosam yëpp mu jël ko jox ma ko benn xale jóge Nouakchott yàgg a wax ni dafa bëggoon sëñ Cheikh Tidiane si may ko tariqa bi sëñ Cheikh Tidiane si génn àddina mu di ko jooy ni ko dama bëggoon nga may ma tariqa bi génn nga àddina dama bëgg nga wax ma koo ma booleel nee na mu ne ko xalifa mbay laa la booleel xale bi jóge Nouakchott ñëw sama kër gisuma mu ñëw ci kër gi ñu ne ko kër baay Mbay lay yendu bisu ziar général mu ñëw fii gisuma fekk booba dama génn ci kër gi dem di ziyaari Baye Mbay bi ma ziyaaree Baye Mbay ba ñëw ba dugg xale bi dugg si di ma wax gént gi mësul la ni asalaamualeykum ma ni ko xam nga ni nii ko yàlla moo nu boole waaye beneen bi neex mooy sunu yaay Fane ak sunu mbokk yi ñu bokk ndey bokk baay Abdallah mi suñ ko nee ak meen mu dog suñ nee umu ak meen mu dog ah fatsi suñ nee fatsi ak meen mu dog ndax lan seen wëyjur ak sunu jur bu jigéen ñoo amoon chance di togg di jox sëñ Babacar Si muy muy muy barkeelu ma nettali ci sax lu reelu Baye Mbaye xam nga moom dafa neexoon nee na mu ni ma Xalifa Mbaye sa yaay moo tax ma lekk desu sëñ Babacar mën ma waaye mos na maa indil loo xam ni dama ko ni moo um mbaay lii mel ni sax yu ñu sotti meew moom lu mu doon mu ne ko lii mooy vermisel gis nga Baye Mbaye ni mu gëmee sëñ Babacar sopp ko loolu moo tax lekk gi ko gënoon a neex ci àddina mooy vermicelle nee na mu ne ko lii mooy vermicelle papa Khalifa moom la doon reere waaw ñoom ñu nekk ca tarbiya ba ca waañ wa ñu dem ba foofa ñu nekkoon ñoom ñépp yàlla indi leen ci benn koñ seen ñaari buntu kër yi jàkkaarloo kon kay mag ñi ñoo bëgg yëf yi kon ci continuer rekk kon lii ngeen indi jox nu ko nun danoo waroon a jël jox leen moo tax sànq la Ahmadou wax ni maire bi ñun ñoo ko waroon a jox. lu xew mu joxe. waaw. ba ci Abdou Mbaye. waaw. te xoolal fi mu nekk gan ñépp ci kër gi lañuy nekk ah kon ñu xamal leen rekk di leen nun itam nu ngi ciy bég te di leen ñaanal yàlla ah bisu baay mbay bii ku fi ñëw ma wax la ko ku yàlla nammul sa mbir baax doo ci def te mooy tànn ñi ciy def waaye lu ci waay def fa ko defee balang faa jóge di nga gis mu fay la ko